ñaar yo xamantene ka contact la mo ñoo xamantene dañoo jégué won ñu ñu contaminé ñu leen doon suivre ak ñeent yo xamantene transmission communautaire la ci dëkk bi lañ ko jëlé ñu leen diégal yëgal itam ci ne patients yi ñu hospitaliser amna ñett ñu défal sen contrôle be ñom wër nañ légui ci ñett yoyu d'ailleurs cas numéro 5 bi xamantene le 11 mars lañ ko. contrôlé woon koku bokk na si ñu wér ñu leen di yëgal ne fii si Dakar ak Touba ñu fay hospitalisé ñu ngi leen di suivre te ñu ngi am tan tey mën nañu wax ne juróom ñaar fukk ak juróom ñeent cas positif moom la ñu déclaré Sénégal depuis bi ñu commencé mu am si juróom ñett yoo xamante ne wér nañ bon donc juróom ñaar fukk ak benn ñoom ñoo nekk tey en hospitalisation ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demandé population yi ñu respecté ñu respecté bu baax ndigal yi xamantene jox nañ leen ko pour ñu mucc ci jangoro boobu ma ngi leen di gërëm baax.